Assalamualaikum wa rahmatullah wa waa Tuddiine ngi len di nuyu di len ziar yen wa keur musa ma ngi len di nuyu di len ziar di len balu ak di len bal ci wéru teddu tedd wu màgg bii rahim rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmiddin iyyaka nahbudu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المهدوب عليهم ولا دالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنيتم عريس عليكم بالمؤمنين رخوف رحيم فإن تولوا فهم حسبي الله laa ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul xalsil xasim sadaxallaahul asim dañuy nab na bi rek mokkalaguñu mokk gi moom des na waaye dañ ne boo jullee ba pare sopp nañ si nga wax rabbana aatayna fi dunya hasanatan wa fil axirati hasanatan waxina xasaaba naari rabbana la tusi xulubana baxda salaykana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab sopp nañ ci tamit nga wax allahu laa ilaha illa xayyul xayoomu la taaxusuhoo sinnatun wala nawmun lahoo maa fi samawati wa maa fil ardi man zal la si yasfahu indahoo ilaahi bismihi yaxlamu maa bayna aydihim wa maa xalfahum wala yaxiituuna bi sayin min ilmihi illa bima saa wasiha kursi samawati wal arda wala yahduhu hissihuma wa huwal alil asim al asim maa ngi sant di geureum adjaratuma jigen jigéen jaase ñu la fay dañ lay ak yalla ndax man li fama egg maa ngi ak yonent ba do nga ko xam ndax man jang rek la bëgg sama xol dara ji yema dendel suñu xalé yi jang duma bëgg lu dul dem tok fa sama jotama ko mayu ñu ubbi li nak déplacé wu ñu dérangé wu ñu nekk ci suñuy portable man de lu ma am connexion lay jar su ma xëyee dinaa dugg dinaa nuyoo dinaa tari wax farata yi ma jigéen mënuñu laa fay di sant nag ajaratu na way saw mbay fu mu àgg ak fu mu jotal rek moo ko fa jotal soxna mbuub ñëw moom tamit kuy jàng foo jube foo dënge mu jubbanti la foo dënge rek soxna jubbanti na la ba keroog ñu man lii ñu ci jota man yàlla na yàlla may lu kawe suñu njort jërë ngeen jëf maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf